am solo euh, muy euh, euh, Khady Camara Khady ñu ngi lay nuyu nga ñëw ngir ñu waxtaanee leneen loo xame ni ba tey mën nañu ko méngale ak comportement yi ñi am ci oto yi bu njëkkaan dañ daan set setal ci quartier yi marché yi dañu ko daan dañu ko daan set setal ni ci dëkk ci quartier yi ñoo daan jël seeni initiative di ko defar loolu amatul léegi plage yëpp salte na marché yëpp salte na koñ yëpp daanaka léegi bopp sa bopp la kenn baleetul sax buntu kër yi yéen ngeen jóg pour gën a ak nit ñi ñu dox ci wàllu euh, euh, set ak setal exactement maa ngi leen jëloo nuyoo bi <laughs> nuyu ñu nekk ci plateau bi ñëpp mm. donc euh, comme ni nga ko waxee effectivement c'est ça mm. c'est une action citoyenne comme action citoyenne yi nga xamante ni mooy am fépp ci àdduna bi mm-hmm, mm-hmm. bii nag euh, dafa jëm ci parce que gis nañ ne tey environnement bi ci bi yëpp sax laay wax ci mm-hmm, planète bi euh, dafa jànkoonteeg li nga xamante ni moom la ñuy wax changement climatique te jot na soit dañ ciy adapté wu loolu pays yi nga xamante ni ñoom ñoo am maanaam pays développé yi ñoom ñoo ko gën a mën a def ñun ñi nga xamante ni ay pays sous-développés lañ. Mhm. dañuy jéem a ut ay action yoo xamante ne moom la ñuy entreprendre euh, pour mun a wàññi. cause euh, dégâts yi nga xamante ni moom la ñu mën a jural action yi mu ngi mu ngi tàmbalee ci li ma njëkk a wax léegi. loolu mooy vacance verte mooy vacance verte euh, dindi <laughs> tilim. donc ñëw ci euh, yenn ci ñu am ci jafe-jafe ci wàllu climat. exactement loolu mm. moo tax ñu wax vacance verte. donc on est en période de vacances. Mm, mm. ñu ne vacance verte war nañu mën a ñaax xale yi. war nañ ci mun a ñaax askan wi jëmale ko ci changement de comportement. Mm-hmm. maanaam éducation environnementale. Mm-hmm. fexe ba Sénégal ñu am culture. éco-citoyenneté maanaam ñu am beneen comportement comportement éco mhm. euh, pour ñu mën a protéger euh, suñu koñ yi mu ñu mën a protéger euh, suñu marché yi setal ko ba mu set mhm. parce que marché Sénégal yi dafa nekk bokk ci marché yi gën a salté mhm. ci adduna bi te gaz yi nga xamante ni moom mooy indi voilà justement donc carbone yu gën a bon ci gaz yi booy xool ci décomposition yi am ci ci ci mbalit yi nekk ci marché yi foofu lañu koy fekk donc ñu ne les vacances vertes c'est pour des plages propres des marchés propres, mmh. mais aussi des, des quartiers, mm-hmm. avec, euh, pour avoir un meilleur cadre de vie, mmh. des activités de reboisement. Mm-hmm. maanaam jëmbat ay garab ah. euh, si quartier yi ah. si yi mm-hmm. mais aussi ci mosquée yi ak église yi ah. parce que gis nañu cible boobu ñoom ñu koy gën a mën a toppatoo voilà daan nañ jëmbat garab kër yëpp daanaka amoon na ay fleur ci buntu kër gi mais des fois tu as l'impression que yu baax yooyu yëpp dañ ko bàyyi ñun fii Sénégal exactement donc loolu moo tax tey bu ñu duggee ci ci quartier yi par exemple dañ fay def trois à quatre jours. ñett ba ñeenti fan. parce que benn fan rek kese mënoo ci def dara. bu yàgg ba set setal la woon. Mhm. da ngay def benn fan après ñu pare y' a suivi. Mhm. Mm. te lu amul suivi euh, donc euh, euh, mënul nekk loo xamante ni dina dina jëriñ askan wi. xëy na ci ponctuellement ci jour bi ñu ko def. Mhm. mën na am ay effet ñu ne ah fii de set na tey parce que nii ak nii. mais bu amul suivi rek du mën a baax. loolu moo tax vacances vertes mu ne ñun dinañ informer dinañ sensibiliser marché bu ñu dem. on travaille avec des yëngu en association Beach Clean Up ils sont en géographie donc ils font du porte à porte marché bi dañuy dem ci commerçant yi mhm. def porte à porte dugg ci marché bi waxtaan ak commerçant yëpp mhm. ne leen am na kat tey loo xamante ni moo xew ci àdduna bi mhm. euh, Sénégal culture am culture bu set la woon ndax euh, majorité bi nekk ci Sénégal ay musulmans lañu te xam nañ ne ku xam religion musulmane xam na dafa ànd ak cet donc oustaz du ma weddi ci loolu loolu moo tax euh, ñun sensibilisation ak information def ñu amal solo bu ñu jógee ci loolu it dañ naan wi ñun ñëwuñu fi pour seetal en l'espace de deux trois jours à quatre jours mhm. dañu bëgg bu ñu fi jógee yéen ngeen am comportement bu ni mel mhm. bu ngeen gisee lu salté ngeen defar ko mhm. ci marché yi aussi dañuy def distribution ay bac à ordure ah. parce que doo ñëw nga ne nit ki dama bëgg nga set dama bëgg nga changer fekk joxoo ko ay moyens donc ñun dañuy distribuer ay bac à ordure ci marché bu ñu jaar ñu may leen ko ñu ne leen nag conditionnement dafa am importance euh, ci loolu aussi dañ ciy liggéey la seen xel màcc ci wàllu set ak setal ndakaaru ak mhm. Sénégal gi yëpp sax mhm. laay wax mhm. donc il faut que ñu am ay professionnels yoo xam te ne ñoo ñuy gunge ci wàllu jëmbatub garab yi aussi dañu ne mënuñu dem ñun kese parce que ñun xamuñu naka la ñuy jëmbatee garab dañuy defe ne jëmbat garab dafa yomb eh mais yombeewul noonu donc dañ ci ànd ak waa direction des eaux et forêts fépp fu ñuy dem si terrain bi dañuy ñëw ànd ak ñun euh, jàppale ñu ah, wan askan wi naka la ñuy defee euh, naka la ñuy jëmbatee garab ba nga xam ne yu jël <laughs> lu baax la ñuy defandoo mhm. ki nga doon wax léegi léegi mhm. ki moom page l'indiscipline au Sénégal mhm. euh, moom tamit dafa am most wanted je pense war nga ko dégg ñoom ñoo ñoom ñoo nettoyé woon euh, baie de bi ba ñoom Fadiga ñoom ñëpp demoon fa je pense war ngeen mën a liggéey mooy Dija Malick ba tey moo créé voilà je pense la rek war ngeen mën a ah. jaar moom it même chose lay def ah. day dem nettoyé su day def un mois après mu dellu xool ndax dafa sal et puis li solo mooy sans sans sans xaar ci dara ba pare boo ko ne dama lay defal kii sax mu ne la non bon voilà euh, vous avez est-ce que vous de l'aide venant de ONG wala pour jàppale leen ci matériel. Ah, xam nga euh, édition bu nekk bu njëkk bi day métti. Mhm. Euh, donc c'est vrai que defoon nañu ay demandes mais amuñu subvention bi nga xamante ni moom moo war. Mhm. Euh, donc ministère de l'environnement les bacs à ordures. ñoom ñoo ñu ko may. 1500 mhm. plans yi nga xamante ni moom la ñuy jëmbat un peu partout à Dakar parce que la première édition ne concerne que la région de Dakar. donc ah, waa direction des eaux et forêts ñoom ñoo ñu ko jox. Euh, subvention amaguñ ko donc mhm. on fait avec les moyens du bord mhm. les étudiants sont super motivés mhm. et on est accompagné aussi euh, par rapport à la sensibilisation ci euh, gestion des déchets mot du plastique qu'on ne présente plus donc c'est la mascotte nationale pour la protection de l'environnement et la lutte contre les déchets plastiques donc moom la ñuy àndal muy ñax askan wi di waxtaan ak ñoom fépp fu ñuy dem donc j'espère que deuxième édition bi on lance un appel à vous Mm-hmm. par exemple. Mm-hmm. Mm-hmm. pourquoi pas le groupe GFM. à à toutes les bonnes volontés. ñu jàpp ci parce que euh, ñun action citoyenne la def. te li def yaakaar naa ne euh, pour que. ak kii bi askan wi. mën a am dundin bu gën a feex. dundin bu gën a baax. ba nga xamante ni feebar yi nga xamante ni polition moo koy indi ci Sénégal te tey dafa bari. mu mën a wàññeeku et puis effet yi nga xamante ni changement climatique. mu koy def ci Sénégal. Mhm. mu mën a wàññeeku. voilà moo tax ñu invité la tey ah moo tax ñu invité la tey nga wax ci. Euh, ak ah. ak mhm. cité assemblée maag Pape Cheikh dinañ génn moom jàpp ci nettoyage. c'est très important c'est très <laughs> important Alphie. boo ñëw ko c'est très important. parce qu'on a besoin aussi de l'implique de sentir l'implication des populations parce que mm-hmm. ay étudiants duñ ñëw ay caravanier ñu ñëw sa koñ mm-hmm. comme par exemple euh, à Liberté 6 mm-hmm. ñu ngi fay ñëw di bale terrain bi des jeunes étaient là ci seen taatu garab di ñu xool di ñu seetaan comme oh ça donc ça c'est dommage une occasion aussi de sensibiliser les jeunes sénégalais pour buñ leen gisee rek ñu def au moins xanaa ku ñëw di ba sa biir néeg di ko bale ko bale nga mun ko yàkkati jàpp jàppale ci bale bi sax ci bale bi quand même donc yéen a ngi ko tàmbali 19 euh, août euh, Yoff euh, fan ngeen jëm alors euh, def euh, nañu quatre étapes mm c'était prévu que dañuy def dix étapes c'est-à-dire mhm. dix communes de la région de Dakar mhm. mais on s'est rendu compte que c'était très dur mënuñu mhm. ko parce que dañuy dem ci yenn gox yoo xamante ni on est obligé de rester une semaine tellement que li ñu fay defar dafay bari parce que boobu ñu defar rek noonu bàyyi sensibilisation information c'est super important pour nous donc euh, malheureusement fi ñu toll nii quatre étapes lañ defagum muy Pikine Yoff Rufisque ak euh, comment ça s'appelle euh, SICAP. Mhm. et donc euh, Médina la ñu war a dem. Mhm. quartier Bamba Fall. Mhm. pour def fa aussi benn action citoyenne ah, ak ñoom voilà j' bien ah. que waa <laughs> Médina yëpp dinañ génn. Uh-huh. on va clôturer parce que c' bientôt la rentrée. donc c' prévu pour le euh, octobre. mais ce sera à Guédiawaye dans la banlieue. pure banlieue. et donc ñu ngi woo askanu uh-huh. pendant une semaine. pour que le travail soit bien fait et que les populations puissent en profiter.